waaw Macky Sall ñi mi ñi mi ñi muy financé dinaa leen tegal audio bi fiñ ko encaissé té ñom ñëpp nag joxuñu ko askan bi joxewuñu fenn ba ci Touba daanaka mom 1 milliard la fa yóbbu ñi nga naan 1 milliard ñi ne 900 parce que waxoon naa ko fi. mais ñom ñëpp dañu lekk né pat très bien merci kontaan naa trop ci askanu Sénégal yeewu nañ dé de dakate askanu Sénégal li ñu leen ku leen jox lekk leen yëpp bu leen ko wotal dégg nañ ko parce que mënu jël nga jël sa yar dóor ma rendi sama dom tal sama lire ba pare wolbeutiko nga ne dama lay jox xaalis pour bu ëllëgee ku jurat ma tal ko ku jur ma ray ko mané dama lay wotel légui nak Macky Sall ñi mu jox ci bopam ñoo doon réunion bi réunion wé ñu né Macky Sall bi jox bu ñu ko jox bu ko campagne nañ ko denc parce que xamnañ ni Macky Sall day daanu te bu daanu dinañ torox kon bala ñoo torox nañ jël ci bi denc ko. Macky Sall ñi ko jox ñu campagne la kenn campagne la ñëpp lekk seen xaalis ñëpp jël seen xaalis téye ba ci Amadou Ba mi nga def milliardaire yëkkatiwaat xaalis jox ko kenn campagne Amadou Ba gisoo ko fenn ci terrain bi dafa jël xaalisam téye ndax fii dara du umpe dafa woo ay nitam ku ne mu mosal la ne leen dem leen ngeen toog bu kenn campagne kii daanu na ba pare ndax defu fi lu baax woon naa la say nit ci boppam dinañ ñëw toog di la jëw Macky Sall nga nañ ne ministre yeeg député yi audit leen ñoom ñëpp lay wax te toroxal nañ la te gisoo goo dara yaa ngi bëgg forcé nag doole yaay pour yaa gañe yow foo dem ñu toroxal la kenn campagne la yow sa bopp ba nga demee euh, ndar gee dañ laa yuuxoo nga ñëwaat toog xam sa bopp Mansour mais ñu toroxal ko mu a tocc ci bureau yuuxoo ko ba mën a tocc ci ndar gee Ousmane Sonko ku ne gis ku ne gis na caravanam xel ya daal yow Macky Sall yow war nga am sax ngor go xamni waro gene sax nan gañe na may wax Mimi Touré kat sàcc bobu badjanu gor jigen yeeg badjanu lesbienne yoyu koku nga xamni mo nampal abraha nampal firawuna nampal ummu jamil nampal abul hab nga nan dang nga koy jiitalee ya ci sa ki nga xamni foko foo ko du am lu bax ndax baxut Macky Sall xam nga Ousmane Sonko dal na wax nan leader yu bari Macky Sall dañuy liggéey ñu nan nangam ak nangam nangam ya gëna live nan leader yi ku dul walu doo doo yeewi Macky Sall ngay liggéeyal Macky Sall yow Diourbel Malick Fall département la fa gañe ville bi gox goxaan yëpp yeewi askan bee ko gañe dégg nga si Louga gee ngay xëccoo Moustapha Diop département bi la gañe te ay mbokk ma ko tegal ne mu financé xaalis nga xam ne xamuñu dara xamuñu liggéey jëriñ ñoo ko ko woteel ville bi ak gox goxaan yëpp ci Louga yeewi askan bee ko gañe mbour nak mom duma gawa wax lutax ñu xaw fa ki duma gawa a wax ndax bu ki sango de rubey ño jaar ci suuf di am lu ñuy wax koku duma gawa wax ndax man ummi gay mom awmu lu may ci taw awmu lu may ragal wax waye wax bu ñoree fa nga ko waree wax nga koy waxee bu ñoru nga wax du am sens waye la def lolu mbour mom dina len jox sen toroxol ci réseaux suuy ba mëna a ndax ummi gay amul lu muy tiit amul ragal amul lu muy ragal ku jomul ñu wax lolu bon ummi gay du jom pour wax la deug gulay toroxal Babacar Diop yow da nga a yàq yow Babacar yow docteur Babacar Diop yow mi nga xamante ni jaam nga mbaa mu xaj nga boo xamante ni foo romb foosu duus naan ko yow Babacar Diop Sonko def na la nit ba sonn yóbbu la kees gi nga xamante ni boo doon xaxaj kaña sax kaña kaña gañara boo doon xaxaj ginaar ginaar gañara yow docteur Babacar Diop maire kees laa wax naa feq bi hypocrite bi yow mi doon dogalee yow mi wax ak Macky la wax ak Félix Antoine Diome ba pare pour dogalee euh, convoi Ousmane pour yàqal ko pour nuñ ko tégalé ndëgg sërëx pour jëm ko faagaagal yow docteur Babacar Diop nga defee dina jàpp son ko teg la fi nga nekk son ko tax eh, ko tax nga am jabar ndax parce que booboo ba nga ko amé yàggu nga tax jabar sa jabar bu la xamone du la nawloo bu démb doon tay sa jabar du soxla nga nek sa dëkkër kon do soxla sa kay duus waye dina la toroxal ci réseau bi yow ba di nga recc lo duddoo ci kaw suuf ndax na fekk nga hypocrite nga yow dina la wër dina la toroxal te do doyé kess toroxal na la da yow dess na tuti nga genn kess ñu la yuuxoo yow yow saxago laf sax di lappi lappi saxago laf sax di dem dëmmalu yow docteur Babacar job yow euh, euh, euh, kess yow na fekk hypocrite bi yow doomu ndayu Idrissa sek ci war ak naa fekk jambu bon bi nga doon yàgg naa leen wax passif loxo makki Sall nga fa ñu bari makki Sall na ñuy liggéey di len fañu man samay samay kaddu duma ci am gatch nak dama ñeme limay wax assumé limay wax te limay wax deug la setuma ko nan dafa meuna a wax lijjantiwuma ko nan nako deglu dedet déedéet soxloo ma pos soxloo ma dara ndax avant pass mangi lek di nan pass taxul ma meuna wax politique taxul ma meuna wax dañ ma fekk ma meun wax yalla ma jox wax may wax du pass tax may wax du wut pass tax may wax ba batay mangi lek di nan di sant yalla alhamdulilah rabbil alamin ala kulli hal ak ñu melni man ça va gis nga fi alal ken duko ko judduwaale ngor nañu nañuy judduwaale deewaale ko waye alal ken duko ko judduwaale diko ko deewaale fii ku ne dama ci alal la juddo yoro ci alal alti toluma waxo deug da ngay fan ku ne alal tiitalu ma wala dama judd ci alal mag ci alal ku ko wax da ngay fan ndax da yaramu neen ngay juddo yaramu neen ngay delo ci suñu borom ñaata nga koy doxat 300 la ko jox ñaata nga koy doxat damaa xam bàyyi wu ñëw damay laaj wu ñëw dégg si lolu mom ku andak sangor ku ne do dama dama jutti si ala yoon si ala ala jaaxalu ma dedet déedéet parce que que nit da ngay jullu sangor sax ci ngor andak sangor ki nak mom babakar jog mom dafa jutti ci jam mag ci jam jutti ci wor mag ci wor motax waye man deug deug yalla ko mom Sonko nang moom ku ko ku ko war di nga torox ndax gor la garmi la fi kep ku ku ñu fi waaw waaw waaw di la tàcc Sonko tax ndax xam nañ fi ñi fayon ba Sonko tax ñu takkat ñi fayon xam nañ leen fi te Sonko tax ñu takkat kon donc kuy war Sonko da nga ñak jom coalition bi nak yàlla leen yalla yok jubale te ngeen nek ben rek ndax li walé na nek ben tax lu ngeen songo dan ko lu leen songo daanu xaaral ma dëkkal leen audio bi bi nga xamantani ni Macky Sall ñi mu jox xaalisam nit mom bo bo bo bo deful fa nga wara def ci gatchak torox tànge rek ngay sax Macky Sall ay am gàcce way ñun duñu am gàcce xex bi ku yaakaane damay bay Senegal du am dara nak ka sa bop ya dul am dara Senegal am limi am ba pare te inshallah allah dinañ ci dimbali deklu len pare taxi bobu mala la damay waaj a julli tàkkusaan nii mais boo jege ku mën a liir naa la ko liiral boo ko amul après man dinaa dinaa la ko liiral ci benn audio maanaam maanaam kii di euh, bokk gis-gis sëñ Mansour si kii euh, keneen maanaam kooku moom turam indiwuñ ko mais benn xam naa ci ci gars yi lay doon rek un homme de ses hommes maanaam sëñ Mansour si moom ak kenn ci ñi mu àndal sëñ Mansour moom ñoo ngi ko joxee somme bi. benn hôtel bu luxe fële bu 14e avenue lañ ko ko joxe 14e rue ca France Paris fa lañ ko joxe xaalis bi moom ñu ngi ko jox 500000 euros moom lañ ko jox kennam kooku tamit jox nañ ko benn 4x4 ak 700 millions moom ñoo ngi kër góor donc euh, Youssou Ndour moom tamit jox nañ ko 400 million maanaam ñoo ngi ko ko joxee këram ci Almadi momit pour mu financer Pape Djibril Fall jox nako ci 50 millions ak ko quatre quatre ki euh, wax bokk gis-gis di pap Diop momit it jot na six millions juroom benn téeméeri millions ñong ko ko joxe cité kër góor gi ki ñi wax ar mu ñom Thierno Bocoum ñom Thierno kii nangam ñooñu ñu ngi leen jox 900 millions ak cinq montant bi ñu ngi leen ko trans bi ñu ngi leen ko ñu ngi leen ko yone ñaar ñaar ñaari yoon lañ ko yónnee lañ leen ko yónnee waaw ñett yoon lañ leen yónnee transmis waaw jox ñu leen ko benn yoon fa ñuy wax Touba gars yi ñu fa yóbbu déggal Touba ci rumeur yi dañu ni yóbbu nañ fa trois cent millions am ñu ni déedéet ëpp na ko maanaam milliard lañ fa yóbbu maanaam séddale ko politiciens yi dal moy paré moy wax ji xam naa bu ma amoon temps ñeneen dama la koy. Touba mom dañ ko toroxal deug très bien merci li moy ku ku ku ñaane sa deewin sa sa donin ñaaw askan bi di xif son nit ñuy faju wuñu Macky Sall jël alal gi diko jëndé nit ñi naan politique leen way bu la di nga xamni ne sénégalais nga fi fekk yewu nañ lu na nga da nga ne da ngay xifal Sénégal pour nga jëndé leen ñu xacc ci poos nga mëna tok ba jox Amadou Sénégal ne c'est pas vrai c'est pas vrai sonn nañ ci yow maar nañ ci yow tufli nañ la xàqandiku nañ la doy na doy na yow Macky Sall Macky Sall nag yàlla defal nañu sutura ba Sénégal moom am na ñoo xamante ni moom bala ngaa jaar seen kaw wala bala ngaa jaar seen kaw dinañ la toroxal dinañ la weer Macky Sall nag ay mala yu deewul. ay mala yu deewul kooku moom sëriñu daara yi li may wax rek ndax man alxuraan laa gëm su may ñaan ci alxuraan laay ñaan ñooñ laa koy ndayale ñooñu laa koy sant sëriñu daara yi ngeen tas ko waa Ndar nañ ci jot daara yi alxuraan yi nañ ci jot ustaas yi nañ ci jot Casamance nañ ci jot Louga yi nan ñaan yàlla ci baqara la ma waxoon rek baqara ak sóoratul yaasin ñu ñaan ci ku mën rek alxuraan boo mën mais nag ay xale yu ndaw ñooy tajal Macky Sall parce que daf ko def ci lëndam dugal ko ci bàmmeel pour tëj gémmiñu Sénégal yi parce que Macky Sall dafa am ay lobby yu mu signé yoo xamante ni bëggul Sénégalais yi xam ko dafa bëgg bett Sénégalais yi toroxal leen daaray alxuraan yi sama kaddu yi ku ko jàllale ci daaray alxuraan yal na yàlla faj sa aajo ñu toroxal Macky Sall nu mu gën a bu mu nee sax tey ak suba xale yi nga xam xamuñu dara ndax Macky Sall xale yi la yab seen sacrifice yëpp xale yi la xale yi nga xamante ne xamuñu dara nekk ci daaray alxuraan nga xam ne jàng la ñu xam alxuraan na seen sëriñu daara yi ne nee leen Macky Sall jàng leen alxuraan sooratul Baqara wala sooratul Ibrahim wala sooratul Muhammad wala sooratul Maryam na liir ba waxee na Isa waxalee Maryam xale yi nañ ñaan ne Macky Sall lépp lu muy nëpp yal na ko yàlla weer yal na yàlla xawi suturaam yal na ko yàlla toroxal yal na ay nitam jafur sama gaay yi dimbali len ma rek daara nan jox ci li pour xalé yi wax loolu Macky Sall nga yaakaar ak fétiche lo xamanteni ci lendeum kurus kurus lako def ci bammel la def fétiche fétiche bobu nak likoy tok moy xalé daara ay alcorane yi xamul dara ak mak mu ci wolu sa bop maandu ragal yalla taw suñu borom do fen tay lek lu lew mang la koy ñaan so mene tari yasin jappal ba set ñaan suñu borom bakk ko kañ ko xalé yi tamit nan ñaan li ñi ñaan mo na serigne sëriñ ba ni len nee leen Sall bepp fetis bu mu def yalla nako ko wër ni yalla weeree won firaw na weere ko abaraxa ba mu jibee ñay ba ñepp gantal ko kep ko mak Sall waxalon yalla nga ko gantal ko xawi turam nanu ñaan li bepp fetis bu mu def ci ñaka wax yalla na yalla toj ba ñepp wax nanu ñaan li mak Sall nak buma déggé dina jommi dina jomé Macky Sall nga fétis fétis bu bon bu mu mën ci almer la ko def ci lëndëm pour tëj ñu Sénégalais li lii ñu yalla may nak muy lan muy ndam li bu ñu lo jóg Macky Sall inshallah allah ko génne pale bi te dëj gi mo nam ma dëgg ci Sénégal dinañ dëgg dëjëm bu soobee yalla dama ni fi yalla fi ne ku wéeru ci yalla do daanu Macky Sall ci fétis la wéeru te dina torox dama ni Macky Sall bu yalla defee sutura xale yi ñaan li mag ñi tawxit di lekk lu lew ñaan li Macky Sall suturam dina xawé ko képp ku ko noppiloon di nga wax képp ku ko noppiloon di nga wax Macky Sall yow xamoo sax da ngay xam-xam yow Macky Sall wallahi xamoo di nga bàyyi Yalla ak cëram ak gëddëm de bu soobee Yalla ni nga ko bàyyi de déglu leen fii fi lepp ni ma benn bokk yaakaar ñoo ko teg suñu bopp ñun waxante dëgg ñun waa affaire ñoo ko def ñun waxante dëgg ñu sommes pas moyen la maillot et puis suñu biir gars yi dañuy xeexante moo tax ñu leme nañu ni duma ñu duma yu métti nan nangu defet bi muy neex di naqari nan ko nangu. man neex ñu koy nangu tey jii bu ñu gagné nan fexee nangu franchement parler gars yi door nañu duma yu métti.

na loxal dëgg dëgg Macky Sall gagné nañ ko Macky Sall gagné nañ ko APR nangu nañ euh, askan bi gagné nañu Macky Sall ya, nee na eh, yaay day bëgg négocier Ablaye Wade ya yaay ñaan ko pour xale yi yee <laughs> eh, waay Macky Sall bon <laughs> Ablaye Wade de ndeysaan day naax bu nangoo sax xam nga ne jaara faam ñoom baara dool yi ak nu mu sax ñoom ay dembo duñ ko nangu xam nga ni duñ ko nangu way ay way Macky Sall neewon na so bon yi bon yi ngay def di nga di nga soxla ji ñakoy def Karim Wade mom xam na ni mom xana du ko nangu la yaakar Macky Sall mi tëj ko xañ ko àddina gi ah Karim Wade de du ko nangu de mané ko du ko nangu de légui nak li mooy wax ci Sénégal jallale len ma luy sëriñu daara jot ci légui ngeen dégg ci Macky Sall bu soobee yalla lengu torox benen bi nak moy Macky Sall yeewi askan bi gagné na ko beneen bi mooy Macky Sall du génn fiche am de xam nga lu Macky Sall ni mu sàccalee eh, ay Adama Barrow ca ca Gambie noonu la sàcc noonu la bëgg sàccalee boppam li muy sàcc moo ëpp li peuple bi ne li fi peuple bi ne déggu leen ma de Macky Sall li mu sàccalee Adama Barrow ca Gambie nga xam ne li mu sàcc moo ëpp askan ba Macky Sall li mu sàcc fii moo ëpp askan bi du génnee fiche am de du génnee fiche am def maatam ngee mu ne dégg naa maatam xaw ma dañoo daw ak li suba xaw ma ñu ngi woo waaji mënuñu koo jot waaye askan bi matam li ñu wax ni moo fa gañe liste boobee askan ba ah, moom moo liste baa ëpp askan bi matam Macky Sall ni mu sàccalee eh, Adama Barrow fële Gambie loolu la bëgg sàccee Sénégal gi duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg li ma leen di wax nag mooy Sénégal gépp fekk ji Macky Sall te buñ ko fa fekkee am lu leer laa la wax bu fi tege ay force de gendarme ay force de arme yépp dina ko ci kawam ndax bi du jall bi du jall te bi duñ ko asalo Macky Sall nagam sa bakkan nga ci tek yaakaar nga ni nguur du jeex yaakaar nga ni yow yalla nga nguur du jeex Macky Sall ndax nga sa bop nangul na nak say nit war nañ la da nga waron Senegal kon buñ la waré na neex da nga waron Ablaye Wade buñ la waré nga neex da nga and ak tubaab yi warñu yalla toroxal na la waron jox bop wal nañ la ginnam nee naa de li lay toroxal ci sa a ah, ci sa pale bi mi ngi ci sa biir yàgg naa ko wax fii yàgg naa ko wax fii samay wax pour mu mus la ba wàqee gis nee naa la Macky Sall li lay toroxal mi ngi ci sa biir pale bi nga koy jox mu lekk di ko jox mu naan te noonu la demee noonu la demee de te bii di ñëwee raw nag ndax ñoom seen bopp Macky Sall yow say ministre bopp woote wuñ la wax nañ ko woote wuñ la yow woote wuñ la say ministre képp koo jox xaalis da koo denc woowante seen biir réunion seen biir ba pare woteluñ la ba pare daan dem li ngeen tëdd lekk seen xaalis Macky Sall du gagné dara ndax li nga yëf lu baax. Marème Marème Marème Marème Faye keroog ba ba ba ba pale bay rang ni géttal gu tas ni daral gu ñuy rendi xar dana la xëyat na la Macky Sall sàcc milliards yi ñuy sàcc génneel génneel milliards yi ñuy denc ngeen jox ñii nax ñu woteel ñu. ñooñu jël nañ seen milliards denc toog ne pat sénégal fulla ak fayda mi ngi ñëw ñu ngi sant yàlla bu baax xale yaa ngi ñëw parce que li ngeen yàgg a yegg lekk temps 60 muy abdou diouf ancien bandi fayu boobu doomu kumba dem toog ca toog ca france di la wax nee woon naa la abdou diouf fi la nekk di bàkku di ngan danga daloog euh, guddaayam ni rom taxaw naan jaaral fi ma jaar ak bàyyi sonko nee woon naa la da ca bàyyi du ca doom abdou diouf naa fekk bi yow abdou diouf borom bët yu mbollu yi sa bët yu mbollu yooyu naa fekk tax mu mbollu naan ba ne taga tax nga mboolu bon soxor iñaan moo tax mu mboolu waxoon naa li ci bàyyi du ci doom Sonko ku ko war di nga torox ku ko war di nga suul yërmande ak baaxam moo tax moo ko tax mu uuf ñu ñëpp dooleel leen làq leen ci ginnaawam dooleel leen ku mu ci dooleel nag nga dem nga ne yaay da ngay wàññi dooleem. yaay torox yaay al ko kër torox ndax lépp la Sonko lebalul lebalul Sénégal lu baax li ma leen di wax nag jeune du Sénégal askanu Sénégal. préparez-vous préparez-vous 2024 Sonko incha Koudou Sonko, c'est Sonko euh, France nga toogal du wax na la fi, ñi campagne Macky Sall ngeen campagne Nañi campagne du gis ngeen ko Néna len Macky Sall ñukoy pad, pàdd ñu ci palais du ñu ngi nii pàdd ko Sonko la len wax dama ni 2024 Sénégal yépp lañ préparé di campagne nañ ko commencer. Sonko mo fi toog bu soobee yàlla askan bi moy tan nañ ko tan teg Kenen ku mom ndax ko fi gis ma nga am kërëm France Kenen ku mom nan naan Sénégal laay li xeexal dañuy fen seen bop la xéxal, ñu bon lañu ñu soxor lañu dañu soxora Sénégal sañu tey la seen live ba pare bëgg tey la live Sénégal xale Sénégal neen duñu ko nangu yeewu nañu duñu ko nangu man nag man Oumy Gueye li may campagne yëpp luy toroxal Macky Sall laay campagne dawuma saala yaay nder nëbbatuwuma luy daaneel gouvernement Macky laay campagne dama ni diaspora bi àbb leen oto yéen a xam wutal leen ma safar ma dugg ci gox goxaan